bay bismillah ci xibaar yi Assane Gueye Euh, cat bu mouvement Y'en a marre commissariat central am Ndakaaru la fanaan ñaareel bi fan kon muy janoo ak ñoom takk der yi tey ji ndaje war a doxaat diggam ak ñoom ñu njort ne kàddu jëmee ci njiit réew mi li ko jural wolu gi am ni si bànqaas ba ci fare Sénégal euh, gisee mbir yi rek euh, làq sa doom dóor doomu jàmbur ña ngay nag artu police ci mitital gunu mën a def jëme ci moom cat bu Y'en a marre BFM 2011 diwaanu Tëngéej résultat ya baaxul njiiti daara yi gis ne benn wàllu perturbation di gréew leneen ba ci des mooy gune yee amatul pas-pas ci njàng mi jamono yu maatam moom résultat yu baax lanu fa dund muy certificat bi BFM di euh, baccalauréat ana luy secret bi gëstub Ali Bandel MFDC nguur ak Sénégal waxtaan yi dina dooraat observateur ku xëye 2005 ak léegi nag tàggate bi am ci mbir yi ndax nguur gi bëgg waxtaan yi am file xalaatul mu doon bitim réew jamono yu MFDC sàkko lu ni mel tàggat yaram amaxat xaaware ki gayndeem ñu ngi waajal match bi xaritoo suñu digg ak Maroc xëy na tey woo suñu gaynde bokk na ci li ca nekk ci seetlu Abdou Mamadou Niang ak kii di euh, Diawara dund ca bokk ñoom dañ leen ajoon euh, ci jongante yu nu daan ci ànd ak ki leeral ak Cheikh Tidiane Diagne ak Malal Junior Diagne gis-gis ak RFM Cheikh Diop mooy ministre bi nu dénk wàllu élection Cheikh Gueye ngeen baal ma euh, lan mooy doon ndëgërlaayam ci wàllu liggéey bi ban pouvoir ngir Cheikh Gueye jëm ci yorinu yooyee élection ca lii di administration territoriale nekk ba tey ci loxoy Ousmane Ngom mi nu jëlee élection yi jox ko ko moom. seen gis-gis ak RFM ci njeextalu xibaar yi Abdoulaye Diop ci machine bi. RFM dem ba division investigation criminelle soxna Mantouré Niang maa ngi lay nuyu man. maa ñu ko waxee caat bu mouvement Y'en a marre ñuy mu jaaraat tey ñaareel bi yoon ci kanamu enquêteur yi. waaw ba léegi fi ñu toll nii ci di caat wala boog Siré Touré noonu lan kaa woowee turam dëgg ba léegi ñëwagul ci bâche brigade des affaires générales. mi ngi commissariat central ba tey nekk na ci condition yu baax waaw wala déet ah, Fadel Barro porte parole tey bi di wax rek ne moom li ko wax rek mooy nee nañu mi ngi ci jàmm waaye nee nañ nag am nañ yaakaar ci suñu police nationale eh, di jégalu eh, tey jii nii nag ci suba yóbbul na ko mu ndekki jox na ko lu mu bëgg sax mu di ay croissant ak jus orange fi mu nii nag xale yi yaanaama ñu ngi fi sol nañ seen i t-shirt Eh, bu vert bi am na bu rouge bi am na bu noir bi façon bu la neex am na fi mu toll nii nag ñu ngi xaar ba tey ñoom nee nañu xam nañu ne ay renseignements généraux ñu ngi seen biir rax nañu leen ak itam dañ leen bëgg a intimider waaye defuñu dara moo tax it tiituñu dara waaye fi mu ne nii seen bët yi xonk na coot cur lii wane ne dañ si fanaan danoo gëmmentu ci ñi homme politique yi fi ñëw gis nañ El Hadj Diouf maître ak gis nañ kii di Macky Sall ak Dansokho fi mu toll ni naaj bi tàng na waaye ñoom nee nañu ba faw fas yéene nañoo xaar El Hadj Assane Gueye jërëjëf soxna Mantouré Niang wax ba Amnesty International banqaas bi ci fare Sénégal ak njiit la Seydi Gassama jàpp na yëf yi police da caa tëddee wul ak njaaxaanaay ñu ngi artu police googee nag ci mitital gu mu mun a def jëmee ci euh, caat bu mouvement Yanama di torture Seydi Gassama ñu déglu. ñu ngi ñaawlu euh, convocation bi nga xam ne moom la police convoqué caat euh, ndax d'après information ñu am ci mouvement Yanama. dañ ko convoqué parce que dafa yëkkati woon ay kaddu ci euh, daje bi nga xam ne moom fi amoon euh, samedi ba li passé ñun dañoo considéré kaddu yooyu comme kaddu yi nga xam ne mënuñu leen considéré comme diffamation wala boog injure ndax kaddu la loo xam ne ci mbirum politique surtout ci période préélectorale façon kaddu yooyu day faral di am te du Sénégal rek soo demee France di nga dégg kaddu yooyu soo demee Amérique di nga dégg kaddu yooyu kon convocation boobu ñu ngi koy ñaawlu parce que convocation la boo xam ne jublu dara loolu intimider Y'en a marre mi nga xam ne dañ fi jóg pour revendiquer ay ay droits citoyens ay droits citoyens te revendication boobu dafay gêner gouvernement bi gouvernement bi maanaam euh, pouvoir libéral bi revendication yu daf leen di gêner moo tax tey ñu koy convoqué pour di intimider leen aasa leen fexe ba ñu kase leen ñu ngi bugg a wax rek que le 23 juin passé dañu jàppoon waa mouvement Y'en a marre torturer leen ñu ñaw la ko ba léegi procureur wax ci dara te daf ci waroon wax dara ndax yoon daf ko sant pour mu wax dara bii yoon ñu ngi mettre en garde la police contre toute torture contre euh, Thiat di wax tamit Abdoulaye lu leer Thiat suñ ko dencee kaso ñu nañ ko considéré comme prisonnier politique te ci biir adduna bi yëpp nañu yëngatu pour ñu mun ko bàyyi de façon urgente et façon inconditionnelle. Seydi Gassama jiite bànqaasu Amnesty fii ci Sénégal mu nekkoon kon lu ñe kenn ci waa mouvement Y'en a marre mu ngi ci loxoy police ba tey gannaaw ba mu fanaane commissariat central am Ndakaaru ñuy xaar ak jaaraatam tey jii ci kanamu enquêteurs yi euh, ñeel euh, kàddoom ya woon ca meeting ba woon bu waa mouvement 23 juin keroog 23 juillet Colobane daan ci àndaat ci lu yaatoog soxna Mantouré Niang ñu des ak yoon waaye lu jëm ci wàllu archive ak dencin weeg na muy fas yeneen na saxe euh, diwaanu Louga rawat na mbënd ma fa woon daaw moo waral ñu jógtee fak mbébét jëm ci délocaliser soppi bërëb ab denc ni waaye anam yi denc ga Ibrahima Khalil Sène bërëb bu ci yoon ak yoonal dëppoowul ak yoon. bërëb ba bërëbu jàppandal la rek waaye ba ñuy tabax bâtiment wu euh, tribunal Louga bi war loolu pour denc archive yooyu taxul woon léegi gis nañu déjà place ba xat na. ngir gën a mën a conserver archive judiciaire yooyu am na benn programme bu technicien bu ministère de la justice yëkkati ànd si ak archiviste yi ngir gën a mën a valoriser lii di archive judiciaire Atoumane Ndiaye moom mooy directeur centre national des archives judiciaires bu Sénégal. tabax bañ koy def ñu ko seet ba xam tabax boobu li koy laaj tey ñu war ko fa denc est-ce que bi am na ko ci wàllu sécurité ci wàllu max bañ koo lal ci wàllu mu bañ a xumaag loolu lépp dafa war a am ci tabax ba nga xamante ne ñu ngi koy saytu. boo ko defee lépp lu ay archive te mu nekk ci juridiction yu nekk fii ci suñu réew dinañ ko indi conserver ko waaye tamit traité ko fii ci Louga. juridiction yëpp ci biir Sénégal foofu ay archive am lu ëpp fukki at loolu mën nañu koo jël. indi ko Louga bu ko defee danañu bàyyi place pour que archives yi ñëw ñu mun leen denc foofu waaye yi xam ne ëpp na fukki at ñu indi ko fii denc ko denc boo xamante ne day mucc ayam moo am nag benn ndaje bu ñu doon amal fii ci Louga tey expert yu jëm ci biirum tabax jëm ci mbirum informatique ak ay archiviste yu bokk ci ministère de la justice doon amal ndaje bi lu ko tax a jóg moom mooy wéyal projet bi jëm ci tabax benn centre national des archives judiciaires fii ci Louga Ibrahima Khalil Sène Louga RFM. jërëjëf Khalil seen RFM benn waxtu tegal juróom-ñetti minutes. ak RFM kumpa tàggoog nag yéen. Tëngéej BFM résultat ya baaxu fa téeméer boo jël fukk ak ñent yu tegal njiiti daara yenn gis ne bokk na ci wàllu perturbation grève yeeg yeneen waaye it gune yi nga xamante ak njàng mi ñu wax ko rek ci gàttal dañ caa bëggatul dara am Thiam. ñeenti junni ak juróom-benn fukk ak juróomu candidat yoo xam ni présent nañ juróom-benn téeméer dong ci am lii di BFM ci lii di premier groupe bi mu doon daanaka téeméer boo jël fukk ak ñeent yoo xam ni rek weesu na tuuti ñaareelu groupe bi daanaka ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñeent rek ñoo ci admis mu doon nag ay résultats yoo xam ni daanaka baaxul dara ci lii di commune de Rufisque ci kàddu yi lenn chef d'établissement yi jàpp ne dee sax yenn école yi lii di tendance yu njëkk xaw naa tane Nicolas Diouf di principal bu CEM bu Matar Seck. 14 virgule 60 euh, pour le premier groupe jàngat bi ma ci am daal mooy euh, wax dëgg mënoon na génn loolu résultat premier group bu dee 14 pour cent wax dëgg loolu euh, faible na. loolu daal mënoon na génn loolu daal. ci kàddu chef d' établissement yoo xam ne nii interrogé na leen ci résultat yooyu nga xam ne nii daanaka baaxul dara ci lii de commune ñoom nag dañ ci joxan baaraam lii perturbation scolaire yi maanaam grève professeurs yeeg yu ni mel waaye tamit ñàkk motivation yii di xale yu góor yi nga xam ne nii daanaka jàng nekkatul seen xel lu ni mel sax gannaaw pression boo xam ne bii ñii di seen wéyjur ñu ngi koy def ci ñoom ak lii di professeurs yi ci doon jokkoo ak yéen fi ci Tëngéej di Ousseynou Thiam ngir RFM jërëjëf Ousseynou bon nga xëy diwaanu noppi tànkam ñu teewlu waxtaan bi. moo ngi ci njobantelu jongante bi daanaka xoox la def moom Nafissatou Diop Sow si sandi tàccoom la nekk nag. damay lii samay cours revoir samay exercices. Euh, français ak euh, maths espagnol damay lii cours bi rek xoolaat conjugaison yooyu. bii mooy ñaareelu yoon muy def BFEM ba tax tiit loolu la def. jooy la yëndoo démb gannaaw ba mu jàllee ñaareelu xaaju BFM bi mbir mi dikkee ko kaw ndaxte ci premier tour bi la moon yaakaar. parce que épreuve bi ah, mu mel ni mbër mu jëm ca làmb ja yaay yi di ko jiiñ ak jàppale ci nafar gi ngir mu siggil ay waajuram. Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM. jërëjëf euh, Benjamin Diagne ñu wutali maatam foofee nag résultat yi dafa baax lool macha allah certificat beeg BFM baccalauréat lan mooy secret diwaan ga ci kanam tuuteeg Ali Bandel Niang ñoom Mamadou ak Alassane ni ñu ko waxee diwaan nga foofee njàng la ñu gën a jiital du ñàkk xëy na bëre bi xew fii Ndakaar ak yooyee euh, sama mbokk yi alpulaar yi nag danoo mënut a bëre en tout cas ñi ma ci dëkkal Alassane Mamadou Ali Bandel bu teewee ñu fekk ko Matam. juróom fukk yu teg juróom benn ci téeméer yoo nekk ca bac ba juróom fukk yu teg juróom ñaar ci CFE ak jamono yi juróom ñaari fukk ci li ñu xaymagum ci BFM bi ay résultat yu am solo yi nga xam ni inspection d'académie bu Matam am na ko mu ñeel examen fin d'année yi diwaanu Matam nag bëri na ay bu jàngukaay yi nga xam ni sax seen classe ya cent pour cent la ñu amal ci examen yooyu la muy nuroog sax ab dànq fanaanal bi ñu nemeeku ci wàllum njàngale mi waral laaj bi ñu Faye di inspecteur d'académie bu Matam. du ceeb rek moo ciy dugg du diwlin rek bëri moo ciy dugg togg gi tane. parce que nekk na Matam une région goo xam ne que bëriwul partenaire. mais fii instauré nañ fi jaloog problème bu jot dañuy toog waxtaan ci. ba kóolutee juddu na sax na ba màgg na. ndax dañ fi gis ay enseignants yoo xam ne que. mu doon samedi ay parents d'élèves ñëw nañu nee ma ay professeurs yi topp seen élèves ba guddi ci seen kër yi pour encadrer leen lu am solo la ci njàng te enseignants yooyu bu ñu koy def amul ñaar dërëm amul pikini boo xam ne que jël nañ ko di leen koy fay. inspection départementale bu Matam itam ami jéego yu am solo yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ñettaat yi yëpp ci gannaaw ndem mooy jiitu ci wàllum examen fin d'année yi. waaye fii ci département bile ki nga xam ni moo yore wàllum njàngale mi di Mamadou Lamine lii lu mu gis du dara lu dul liggéey rek moo waral lu ne enseignant boo bu ñëw ñu jox la logement doo fay sa indemnité donc de logement yaa ngi koy def sa poste léeg-léeg sax ñu ngi participer ci l'alimentation foofu boo fa nekkee enseignant bi boo amee jom da ngay naan ah ñii kat li ñu ma defal war naa leen delloo njukkal ma gën a toppatoo ma gën a farlu ci sama liggéey loolu rek mooy secret bi état bi def na li mu war a def communauté bi def na ñi nga xam ne nag ñoo di waajuru ci toppatoo wàllu njàngale mi di Kalidou Diallo mu ngi ciy dugal nde sax moom moomule doomu Matam la te fii ci école bi la duggee daara mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaaw fi ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel leneen nay xibaar ñeel askan weeg dog-dogu courant yi nu tàggoogul ba léegi donte am nag tan waa Wakaam ñetti fanu coupure ci la nuy soog a génn banlieue Dakar yu dëkkaaleeg yooyu coupure Salif Sow. coupure courant yi ba léegi ñu ngi am. da ngay toute une journée doo gis courant cent cent francs doo ko doo ko liggéey da mujjee wàcc sa saal dem jublu affaire mais léegi moom tere na parce que bu tëdd ay deux heures trois heures temps lay. client nga waa yi kontaan ñu ñu dañoo mer Alelo menuisier métallique la ñu ngi ko fekk ci bunt atelier wam mu taxaw defut dara nee na li nga xamante ni da ko waxante client yi lu ci ëpp daanaka du ko def. coupure courant yi ñoo fi jaarati. ndax parfois da jënd ay aluminium yoo xam ni da koy teg fii war koo dagg te su nekkante ne courant dafa koy toute la journée coupé doo ko dagg te du mën a fanaan si biir léegi loolu daf ñuy indi ay problème wala ay tardement de liggéey daal. te nag du plan tàkkal moo koy génne si jafe-jafe bii. ma ñëw du Dieng moo gisee ni nu mel moom benn salle de jeu. la yore chaque jour courant bi day régulier chaque jour temps tàngal bi dafa gën a yéesal kii bi coupure d'électricité ay at ngi nii li nga xamante ni mooy jafe-jafe coupure courant bi gouvernement bi di seet nees koy lijjantee wante ba léegi daa tëlee ci kanam askan wi nga xamante ni courant lay laaj ba léegi Salif Sow Guédiawaye rajo Futurs Médias. xibaar ci RFM. faluk Cheikh Gueye ci boppu ministère chargé des élections askan wi naka la nu ko gisee am na ci ñu am yaakaar am ñu ca àndul euh, lanu juboo ñoom ñëpp rek woowee askan mooy dialogue moom di waxtaan mënut a ñàkk Awa Mbaye Cheikh Gueye ministre bi ñu dénk wàllum élection yi Vieux Diagne ne ci dal moom nee na àndul ak nomination boobu muy wax na ko lu ko waral. moom Ousmane Ngom benn rek lañu. parce que ñoom ñaar benn moo doon seefam. léegi buñ ko fi tegee day mel ni Ousmane Ngom ba fa nekk ba léegi rek. Abdoulaye Wade bi muy nekk en 2000 bi ñu jëlee benn général lañ jëloon léegi ñu jëlaat benn général. ñu dajeeg moom ci buntu palais de justice Abdoulaye Gueye ne Cheikh Gueye moom la ñu war a teg ci place bi ndax nekk na nit koo xamante ne am na expérience te yàgg na ci li muy liggéey mën ko loolu. état bi ci boppam moo war a gérer pour élection yi mën a dox ci yoon kooku dans tous les pays du monde état moo koy def Cheikh Gueye xam na élection yi parce que organisé na ko ba sonn c'est un bon intellectuel am na expérience il a fait 17 ans à l'inspection man personnellement je le connais je sais que c'est de am na lu muy bañ et que àddina toll j'espère que autour ñoom nii kenn fi jël benn risque di ci def naka su noonu parce que jaratu balaa ñuy fal benn ministre di ko dénk wàllum élection yi dañoo waroon a woote waxtaan ngir ñu xam kan lañ koy tabb ak yan mandarga la ñu koy tànnee lii nekk xalaatu lii nekk xalaatu Adama Ndoye lu jiitu nomination sax opposition opposition bi ak parti au pouvoir bi dañoo war a toog autour d'une table dama ne le linge sale se lave en famille ñun ay mbokk kese lañu Sénégal yëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi nañu xool li ñuy def kenn ku si nekk loo fi éegal wala nga ekkati ko fi ci fitna ba deret tuuru boo dee di nga ko layoog sa borom si biir bàmmeel gis-gis yi wuute na ci nomination Cheikh Gueye waaye xalaat bi benn la ci Sénégalais yu bëri mooy taxawal dialogue politique di woote waxtaan ngir fexe ba élection yi ñu ma leer ànd ak dal soxna Awa Mbaye Seck fàttali mbokk yi ne gis-gis ak RFM tey Cheikh Gueye ak palam ne ministre des élections la ñuy waxtaane ak yéen ban pouvoir la fas yéene wéyee ci liggéey bi euh, ndax xam ngeen ni ministre intérieur Ousmane Ngom mooy wéy ne ca mooy kilifa administration territoriale kon ban pouvoir ngir Cheikh Gueye ngir liggéey bi mun a antu seen gis-gis ak RFM njeextalu xibaar yi nguur geeg MFDC waxtaan yi dina dooraat fii la këb diir ngir jàmm ak dalu Sénégal observateur bu groupe Futur Média ko xëyee xamle 2005 ak léegi nag waxtaan yaa nga tàggatee mbe ndax MFDC gi sàkku waxtaan yi amee bitim réew ca nguur ak Sénégal euh, mësuta xalaat lu ni mel waxtaan yi fii lay amee Sénégal. RFM bitim réew. ñu dem fa ànd ak El Hadj jërëjëf kon Alaaji Assane Gueye xabaaru bitim réew yi diwaanub Niger foofee la ñu koy dooree ndaxte ay takk der daal ñoom la kon tegub loxo bokk na ca nag ay officier ñoom ñooñee lañ leen di daal ga ca boppam la ñu bëggoon a kon ëlbati maanaam fuqati am coup d'état waaye lañ leen di tuumal tam bokk na ci président ba ca boppam di Mouhamadou Youssoufou lañ ne moom la ñu kon bëggoon a faat soxna Naata Mbaye ay militaire daal daal dinañ leen teg loxo ni ki àjjuma ji la weesu liñ leen di tuumal mooy dañ doon jéem a amal ab coup ba noppi bëggoon a faat njiitu réew ma di Mouhamadou Youssoufou ci militaire yooyu boole nag benn commandant ak benn lieutenant bu armée wu Niger ñoom ñëpp daal dinañ leen yóbbu ci garde à vue euh, ci gendarmerie benn source nag boo xamante ni waxewul turam moom moo daal di xamale xibaar yooyu lee li di AFP ca beneen wàll wa benn yéenekaay buy génn semaine bu nekk ca Niger ñu koy duppee le courrier di wax ni moom am na benn capitaine ak benn lieutenant boo xam ne teg nañ leen loxo liñ leen di tuumaal mooy dañ doon jéem a indi ay rëq-rëq ci kaaraange réew mi mu nekk benn complot boo xamante ni ñi bokk ci garde présidentielle dafa mel ni bokk nañ ca yéen kaay ba dolli ca ne am na ay documents yoo xamante ni mi ngi ñeel kon conseil national pour la restauration de la démocratie populeer yoo xamante ni fekk nañ ko ci benn këru civil civil boobu la sax dey jotuñu koo teg loxo ndax dafa daw eh, ginnaaw mbir yooyu yëpp nag amul benn ba xibaar bu leer naññ bu ñeel loolu le te sax nag kilifay réewum Niger yi ba tey jilee dëggaluñu wala tamit ñu weddi kon tentative de renversement régime boobu le kon soxna naata ginnaaw Niger Nigéria fa la ñu jëm takk der yee nag mu ñoom fi nekk ni lee ñu leen di tuumaal ne lu ci tolloog ñaar fukk ak ñett ci ay doomu faat nañu leen ci nag ab marché boo xam ne dañu faa dugg rek yëkkati ay sox yu ci sakkan a sakkan jëmale ko kon ca askan woowee lii nag tax na ba kuréel gi nga xam ne day xeex lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleefuk doomu di Amnesty International naqarlu nañu lu nu mel ba noppi a ñi ngi koy askan woowee ci la ñu tegul dara Guinée Conakry ndaje mi nga xam ne waroon naa dox ci diggante nguur ga ak opposition ba aj nañu ko ba jëmi jamono ndaje moomee nag jàppale ne ministre ñu lépp lu jëm ci wàllum administration ak territoire ba ca bopp ak wàllum décentralisation wàllum gox-goxaan ya moo xam le ne lu ni mel ak nañ ko ba jëmi jamono la ñu waroon a waxtaanee nag bokk na ci rek wàllum fichier électoral ba ak yu ni mel dégg ngeen ci nasaraan kii di suñu naataanga gu ñu toogal ca Conakry googee di Amadou Amza Ba Alaaji Asan ñu waxtaanee kon ci diwaanu Afrique ba léegi nii lee ak nag ab ndaje moo xam ne war nañ koo waxtaanee fii ci diwaanu Afrique la ñu fa doon waxtaanee nag bokk na ca rek mbirum maral gi di mbirum sécheresse waaye nag ndaje moomee fi mu nekk nii le jàpp leen ne dañu caa tënkul lenn la nga xam ne daal moom lañ ca mën a jàpp rek mooy ndaje ma ñaari fan. la doon am waaye ñi nga xam ne ñoo waroon a yëkkati daal di joxe di donateurs yi foofee ci diwaanu ko Nairobi waaye nag ONG yi nga xam ni maanaam uh, ñoom ñoo doon yëngu ca lu ni mel nag mbetteel dëgg la ñu am bu ñu sukkandikoo ci ëttu tasu xabaar bi di RFI point fr ca diwaanu ko Tunisie moom ka nga xam ne moo jiite woon réew ma di Ben Ali moom nag am na ca ñenn ñoo xam ni bokk nañ ca ñoom doon nañ leen kon àtte lu ci tollook ñaar fukk ak ñetti membar yoo xam ne nee nañu dañoo jege président ba lool te doon jéem a daw nag réew ma eh, fukki fan ak ñeent ci weeru eh, janvier eh, ñoom nag lañ leen di tuumal daal bokk na ca rek maanaam am alal joo xam ne dañu ko am ci amin goo xam ne jaarul ca yoon Alaaji Asan kon lii moo firi woon ci xabaat ci bitim réew. jërëjëf El Hadj Ahmed ba ci kanam ngir yéene kaay RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM wàllu sport ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay ziar sëñ Cheikh. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye. football gi lañu koy door rek entraîneur équipe nationale bu Sénégal Amara Traoré mi xëy janoog taskatu xibaar yi siiwal liste joueurs yi muy demee sunu digg ak Maroc. boobu la jamono sax ngay wax ak man kii di Malal Junior jaañ mu ngi nii daal di yegg si jógee fi nga xamante ni moo di. Euh, conférence de presse bu Amara Traoré Malal xanaa rek ñu bàyyi la nga noyyi toogaat bu baax génne kayit yi. gune la euh, voilà noyyi amu ci quatre étages. mun na ko ah, dégg Malal ñor Diagne il est encore ko mu noyyi sama mbokk jaañen gi sama mbokk ndar-ndar. acca bisimilah acca boog bisimilah. ñu daal di jàpp kon ci boobule boobule liste li ñu ci a gis nag mooy ñaari yu yu bees mooy euh, kii di Gassé bi nekk ci ñaari tali Moustapha Kassé dañ ko woo góor ci équipe bi ak ki nga xam ne mooy Jamanka. ñoom ñaar nag dañ leen woo bees ci équipe bi waaye itam jàpp nañu ni ñi dellu siwaat mooy euh, ki nga xam ni mooy euh, si Camara ak ki nga xam ni moom moo di euh, kii di Diawara ñoom ñëwaat nañu ci équipe bi waaye nag ñii yi nga xam ne du ñu ñëw mooy Lamine Sané Mamadou Niang Isiar Souleymane Diawara Ngiraan Ndaw dem Ba ba ak Tavares ñoom du ñu bokk ci équipe bi ndax ñii dañu am ay jafe-jafe seen club ñii dañu am ay suspension ci match RDC bi nu jàpp kon jëneñ nag regroupement bi mu ngi doy wax juróom-ñaari fan ci weer bii ñuy dëgmal te match bi dinañ ko joué fukki fan waaye takkusaan dañu koy door Cheikh Tidiane. waaw kon boog euh, Malal Junior donte nag euh, sonn na ndax ñu koy sentir waaye daal xam nga ni El Hadj Assane moom ñeenti escalier moom ko ko yëg ku ne. non euh, Cheikh dama am uh-huh. mbetteel ndax moom dëgg amul compétition. <laughs> <laughs> jërëjëf Malal Junior jaajëf jërëjëf Malal jaajëf kon boog ñu daal di wéyal wàllu tàggat yaram waxtaanee bi yoon lu lu ñeel li nga xamante ni moo di wàllu basketball. ak euh, roi bu basketball bu Sénégal moom nag daal nañ ko tabb di Ibrahima Mbengue moom nag euh, moom mooy meilleur basketteur saison 2010 2011 nekk ca AS Douane moom nag euh, nii na dafa def kem kàttanam daal di ñafe pour jël li nga xamante ne moom la ñëpp di yootu ñu déglu ko kii di Ibrahima Mbengue ci micro RFM. alhamdulilah rabil alamin kontaan rek mënu ma wax sax fu mu toll nii billaah maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax plus yonent bi sant samay ñaari waajur di leen ñaanal fa nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla seen seen kaw dama kontaan trop trop trop trop trop trop trop xaaroon naa ko damay liggéey nag damay joob de sa ñàkk sélection ci équipe nationale ndax li doonul benn genre defuma ko genre revanche quoi parce que foofu moom damay ni question le temps nous jàpp leen kon bokk ci wàllu jigéen ku ñu tabb mu doon ren di Fatou Bintou am nekk ca jaraaf bu Dakar moom ak Ibrahima Kassé kon bokk roi beeg ren bi samedi gi lañ leen di daal di sargal gannaaw finale coupe du Sénégal diggante Université Gaston Berger. ak Saint-Louis basket club ñu daal di waxtaanee wàllu bëre door ak combat diggante Elton ak Tafatine kon boog ab gindee ko na ci am ndax xam ngeen ne mbir mi Jules Diagne da cee xawoon laxasu démb waaye gannaaw ba ñu toogee waxtaan daal daal dinañu gis ni daal solution am na ba tax na daal combat ji dana am samedi foofule ca stade Demba Diop donte nag euh, lii di final coupe du Sénégal ci wàllu basket dinañ ko amal foofule ca Marius Ndiaye dañ siy déglu Pape moom moo yore communication bu Luc euh, Nicolas Enko. d'accord nañu pour def nocturne wala semi nocturne ñun nangu nañu pour ñoom ñu mun def seen basket. ñu pare vingt parti bi ñi nga xam ne ñooy ganu ministre premier ministre bu ñu fa far ñu gaare ñoon bana xaaj yu ñu jël ko pour sunuy invité de marque et VIP ak yooyu ci lañ d'accord li ñu jàpp daal moo daal mbir mi dañu fexe ba basket bi jeex 19h30 su mun a jeex sa avant 19h30 moo ñu gën a. yàlla dogal na waxtaan nañu ba juboo kon yi mën nañ jàpp ni làmb ji dana am incha allahu le samedi 30 à partir de de 16 yooyu mën nañu ubbi bunt yi. kon boog euh, Pape Faye yore kàddu lig Nicolas Enko moo daal di tëj li nga xamante ni moo di wàllu tàggat yaram. di lay gërëm bu baax di la sant Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo bi leen di xibaar saa su euh, ñu dem ci wàllu xibaar ba mbokk Fatick yi ca Jaxaaw dëkk bi di jox la leen ëllëg mooy càccum jur gi reportage Youssouf Bodian. 6 heures du matin ba ay 3 heures ñoo ngi wër finalement gisuñu dara fii yëpp wër nañ ko gisuñu dara. sonn na ginnaaw bu mu doxee bëccëg bi yëpp Abdoulaye Ndour ak ay ñoñom doxoon dem ci ay seen fas yu sàccoon biig waaye ñibbisi nañu te gisuñu dara. dañoo mobilisé wu ñun ñëpp jóg a jóg yëpp ñëw jàpp ci quoi ñun ñu dugg ci biir village yi di laajte. dox nañu fu sori dem nañu fi ba côté Kaolack. ay mbari nji bi yooyu yëpp dem nañu bu ñu ñëwee mu ne vraiment jaaree ñu fi quoi bu ñu fi jaaree dinañ leen ko won et puis ak seen i quoi ak melokaanu fas yi niñ mel waaw mais nañ ci trop. fas doon lu am solo ci baykat rawatina ci jamono nawet mala yi ñu sàcc dina gàllankoor lu bëri liggéey bi famille Ndour sumboon suñu sukkandikoo si Cheikh nekk kenn ci ñoom. yàlla su tawee ba nga xam ne liggéey bi commencé na ñu jékki-jékki rek sàcc sa fas xam nga ne li ñu doon sentu si nawet bi yëpp yàlla bu ñu jàppale dëgg-dëgg ak solidarité mbokk yi liñ ci mënoon a séntu dootul mun am quoi. daaw ci waxtu bi sàcc bi ñu mel amoon na ci jox. caay-caay yi randal ñetti fas ak ay bëy yu bëri ngir li ni mel mën a dàkk population yi sàkku ñu samp ab brigade gendarmerie ci jaxaaw nekk chef lieu communauté rurale digganteem ak jox tollu ci ñeenti kilomètres. ñu ñaan par exemple benn jaxaaw am benn brigade gendarmerie boo xamante ne bis bu ñu amatee loolu lu mel noonu rek ñu mën a taw jooytu ko foofu ba nga xamante ne dañu mën a am benn suite favorable xam ngeen ne nag béykat ñëw benn jour ñëw sàcc sa fas. dem xam-xamoo foo ko jooytu da nga dem wër ba sonn koy dem nañ tey ba ay côté Kaolack ñëw nañ gisuñu dara franchement c'est désolant quoi. Youssouf Bodian bàyyee ko jox ngir rajo Futurs Médias. RFM li ci yéen kaay Master Office bi ngeen taamu ci seen mobilier ak matériel de bureau informatique salon électronique moo leen di may seen revue de presse Master Office ngir seen bépp jumtukaay ci bureau. yéen kaay yeeg El Hadj Ahmed Aïdara bisimilah lu mu duggee def ko waaw waaw le soleil yéen kaay ne Abdoulaye Wade mii moo diggee woon ne yi kon dana ko jëlee ci loxo maître Ousmane Ngom waaw Abdoulaye def na ko ni démb parce que Abdoulaye Wade fal na kon kii di Cheikh Gueye def ko ministre des élections moom Cheikh Gueye moom mais moo nekkoon directeur des élections parce que opposition boobu bee dañ doon ñaxtu ah ñaxtu nga kay ña nga ca ba tey am sattu sow sidibe ci laas yéen kaay ne réew mi goo xam ne maara day taali kaaw jàpp leen ne luy njig Abdoulaye Wade mii mooy njaar Amsatou Sow Sidibé ne ngir intérêt réew mi man damaa yaakaar ne Abdoulaye Wade mii warul kon présenté wu déedéet parce que candidature am gi yàqayte ma laa baaxul baaxul Abdoulaye Wade bu fi présenté woo dana dugal réew mi ci danger goo xam ne maara day taali musiba mbaaba kumba la ma tey yéen kaay ne Abdoulaye Wade day lu dalal xelam kon lay wut waaw amaa daa soxoon ne fal gii nga xam ne fal na ko Cheikh Gueye dalalul suñ xel Moussa Sarr bu LD ci le point du organiser élection yi yi nga xam ne ay sàcc neen la te Cheikh Gueye ak Ousmane Ngom ñoo lëkkaloo waat dégg bëgg organiser élection présidentielle yi nga xam ne ay sàcc la ñu ca namoon lii moo tax ba ñun waa LD ñu jàpp ne président Abdoulaye Wade kon lii nga xam ne moom la def bàyyiwul xel benn yoon la xewoon ca 23 juin jëleewu ci benn njàngat te président Abdoulaye Wade lii mu def nii ay tappale la ak ay muus muus loog mbong mbong lu dégg nga Babacar Touré di responsable na dem ca waxtu Ablaye mënu fee nekk jëlub constitution def ko comme ab tisi di ko xotti fu ko neexee Ablaye Wade warul toog ba weeruk décembre naan ñu candidature am baax na wala baaxul Babacar Touré ne ñoo ñuy xamal ne Abdoulaye Wade mii mobilisé na Dakar Ablaye a gagné le pari de la mobilisation ñeeng ñeeng ñeeng patati patata waa mii waa mii yéen xanaa yéen da ngeen a laajul Hosni Moubarak njiital Égypte gawoon kookee nga xam ne la moo mobilisé keroog Ablaye genn wàll ñaari fan lañ ca teg nga dàq kon ca biti ah te sax nguur gi bu bëggee ay nit mais bu ko bëggee def ko parce que yow nguur gi moo yor alalu askan wi le ah te Abdoulaye Wade na def attention ne xaalis boobee muy jëfandikoo di ci mobiliser du xaalisam xaalisu askan wi la te kenn du wax nag Express News ne caat rapport bu yaanaamaar waaw yemul ca wax kese de parce que daa saaga président Abdoulaye Wade la ilaha illallah le point du journée moo taxit ma nga ca loxol takk der yu division des investigations criminelles dig ya gi nga xam ne kon waa dig googee ñu ngi ko koy la te am juróom-ñeent fukki at 90 ans caat ne waaye yéen est-ce que rek moo fi am juróom-ñeent fukki at fii ci biir réew mi 90 ans bu ñenn ñi nag bëggee jël sama kàddu gi jagleele ko Abdoulaye Wade moom mais ñoo xam yéene kaay gi ne caat xam ngeen lan la waxoon na ah? mag mat naa bàyyi cim réew waaye waxuñu mag mu am juróom-ñeent fukki at 90 ans di fen i ah waa dig ne ko adduna bi yëpp xam nañ ne njiitu réew maître Abdoulaye Wade ngay moom ngay waxal du dëgg caat na cat di leen xool tontu leen ne leen est ce que président Abdoulaye Wade njiitu réew mi kese moo fi am juróom-ñeent fukki at Sénégal fi 90 ans police yi laata ñoo dooraat caat beneen question caat ne ay junni junni ci ay màggat la ñu am ci mim réew léegi nag sama wax ji ko bëgg a jël bëgg koo jagle leen njiitu réew maître Abdoulaye Wade waaye waaye def ko la Cheikh Béthio Thioune def mi ngi ki leen ngeen am ay carte électeur toog dëgg déglu ma yéen samay taalibe Béthio Thioune ne ki ma war a jàppale tuddaguma ko de waaye dana uute lool ak la ma daan def aha waaw waaw Béthio sax ba samp kon dëndëm ci élection présidentielle yi nekk candidat maa la ko wax kàddu yoo yee Cheikh ben ko yëkkati ca Dakar mbay Dakar mbay Dakar mbayee nga nekk ca bët Saalum ak Thiès Béthio Thioune ci yéene kaay gi ne fukki million ak benn ak genn wàll ci ay taalibe laa onze millions cinq cent te juróomi millions <laughs> cunde mba yaasin saagoor ma ca balakoos Cheikh Béthio Thioune samay taalibe cantakun yéen laay waxal bu ñu dajawaatee képp koo xam ne wanoo ma sa carte électeur wala sa récépissé bi wane ne kon bindu njébbalu gi nga xam ne jébbalu nga ko ci man Béthio dakkal naa ko laa ilaha illallah lañ doon toppee Youssou Ndour dakkal nañu ko ci impôt bi luy loolu laas ne impôt boo bee nga xam ne moom la ñu laloon ci ndoddug Youssou Ndour waa ji commencé naa nooy lu xew nguur gi ci boppam kon joxe nañu ndigal fukki banque ak juróom ne leen bàyyi leen jàmbur ne jël xaalis saay bu ko neexee ci ay comptam alhamdulilah njiital bureau recouvrement des impôts et domaines moo bind lettre huissier de justice maître Jean Baptiste Kamaté ngir mu dakkal topp bi nga xam ne doon na ko topp ay société wu Youssou moo xam Youssou Ndour head office la wala xippi ilaha illallah ah ne bu ko defee Youssou Ndour di fay ay impôts ci nu mu ko mënee ay laa jóge naa fa dem naa ca làmb jë combat Tapha Tine ak Elton waaw day am samedi bii di ñëw de ah bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diaw directeur bu stade Demba Diop ci suñu lamb Pape Faye bokk ci Luc Nicolaï en co ne semi nocturne la bu timis weesoo Tidiane Faye ci Le Quotidien yéen kaay ne mosuma xot Pape Morlo xot ko déedéet bopp bi kay laa bloqué Père Birahim Ndiaye entraîneur Pape Morlo ne ah kay da xot te ñun déposé nañ nag recours Balla Gaye 2 ak Tyson waaw ñaari mbër ñaari feem yu wuute Balla Gaye 2 dem Amérique Tyson ne ko ci Ndakaaru gii lay des barki rasulullaay tay si nga Balla Gaye 2 di wax di wax di wax Tyson ne pat pataaral bala gay 2 yokk po am Tyson wàññi dooleem Allahu akbar <laughs> Balla Gaye 2 xam le ban feem la war a bëree ne bu Tyson defee lii ma def ko lii bu taay defee lee ma def ko lee Tyson ne patt pataaral ne la may bëri du ma ko waxee denc kon suspense bi ak flou bi Allahu akbar <laughs> cay Balla Gaye 2 attaqué Tyson waaf ilaha illallah Serigne Ngagne théâtre kat la ci yéene kaay ne Balla Gaye 2 ñàkkul doole de te mën na bëri mais Tyson dóor la man dóor la xam na dóor bu bëggee am ndam suñu lamb ne Balla Gaye 2 ku sonal waa Pikine la ah bon way benn défaite la fa am ak juróomi victoire ci juróom benn combat Eumeu Sène ko daan Balla Gaye 2 daan Bac Seras daan Boy Sey daan Coly Faye daan Tyson Junior daan Baboy adama <laughs> yemale ko fa walaay laa ñu ma caa teg ca daan ya te Alaaji Assane Gueye moom buñ ma ma làpp danaan pat